jiirë ngeen jëf Ousmane Sonko kañ lay tàggoo ak coow ak mbombo laaj la boobu ku xëy xool xët mu njëkk l'observateur foo laaj ko ginnaaw coowal justice li ko topp diggam ak Adji Sarr ginnaaw coowal justice li ko topp diggam ak Mame Mbaye am na leneen coow lu wunneeti ci kaw moom Ousmane Sonko mu di xaalis bu ñu ne ay nit yu dëkk Qatar ñoo ko ko financé ngir su président de la République cëral leen ci pétrole gaz bi ñuy séntu ci réew mi Canard enchaîné yi France bi bindee ñu bari bàyyi woon ci woon xel journaliste bi di Cheikh Yérim Seck dëggal ko keroog ci l'Observateur ba ne fukki milliards ak ñaar la waa Qatar versé Ousmane Sonko keroog ñeenti fan ci weeru décembre Madiambal Diagne ñëw jaaraat ci te lu ko jiitu ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre ba ñuy wote ci assemblée nationale budget bu ministère pétrole ak gaz honorable député Matar Diop bokk ci waa Benno Bokk Yaakaar neewoon na ci assemblée nationale lii dee ci we ndax li may wax dama leer te maa ngi ci firnde yu koy dëggal Moustapha Diakhaté woon fii jamono président groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar ne waa l'Observateur lii garaaw na garaaw goo xam ne des ko war a lijjanti leeral ko te mu ne ngir mu leer ñaari yoon rekk ci lañ ko mën a leerale muy voie parlementaire wala voie judiciaire te boobu di voie judiciaire bi Moustapha Diakhaté ne na moo gën gaaw gars yi l'Observateur yi ne ko ci naka mu ne leen procureur de la République moo ci war a autosaisir wu taxaw lijjanti ko journal Le moom it xëy di lijjanti coow li ba diñu wax xalaat ak gis-gis yooyu ñenn ñu fare ci société civile gi ci réew mi ku ci Alioune ak Birahim Seck amee nañu ko ci li ñuy tuumaal Ousmane Sonko ne ay lobby ñoo ko financé bés bi le jour nañu société civile gi ci réew ñu wax mooy ñu enquête ci waaye nag dem ak prudence ci parti Pastef ba ci la bu leen neexee nañ ñëpp salafiste la bu leen neexee nañ ñëpp voleur la ba violeur waaye ak luñ ko mën di tuumaal du tee ñun Ousmane Sonko la ñuy topp moom la ñu bëgg moom moomee ñu bëgg di grande instance bu nañu ginnaaw si Ziguinchor mbiri Ousmane Sonko yi ma nga jëm ca tribunalum Dakar talaata 12 ca lay doon ci audience spéciale ca palais de justice Lat Dior mu di tribunalum Dakar réew mi quotidien nañu wësin baa dem tool 12 mooy sànni tàccuk Ousmane Sonko Aminata Touré muy wax ba ne saa juróomi baaraam yi photo boobee la Walf quotidien xëy journal bi teg ci bind ne Mimi teg na yi mu jàpp ne mooy farata maanaam priorité yi ci réew impopularité bi nekk ci Macky Sall mu di nekk ci réew mi bu nuppi doon fi am kenn bëggul Amadou Ba bëggul loolee dal ko moom amadu Ba bu mujjee APR mbaa APR du mujj doon alliance pour les retardataires li tax mu ngi ci Source A yëral xët mu njëkk yéenekaay bi éternel retardataire la Source A tuddee Amadou Ba dem na ci sax moom Source A bay wax ne waa Benno Bokk Yaakaar bu ñu jugul ci seen candidat bi di Amadou Ba élection présidentielle dana ñëw bés ba ñëw ñëpp war a xëy di woote Amadou Ba war a woote di xoole ba far tardé Amadou Ba bëgg na tardé Amadou Ba mën naa tardé Amadou Ba tàmm na tardé amul fenn foo xam ne danañ ko fa xaar mu joxe fa rendez-vous heure ba jot ñu gis ko fa firndeli yéene kay bi nañu banka sabaaraam keroog ba muy dem ci Géejawaay ngir doon fa inauguré ñaari infrastructure communautaire 15 heures lañ ko fa doon xaar waaye la fa yegsi ba muy dem ca gaaye dañu newoon ci ngoon gi la fay ñëw ñëpp toog ko xaar ba 4 gi di maanaam ci njël ca la ñu sooge gisee Amadou Ba mu bi di ñëw Amadou Ba ak i tardemam yu bari sursoi ne nañu feeñati na keroog ca réunion bi membre yu task force yu Benno Bokk Yaakaar yi doon def ca këram gii di Petit Palais ndax vingt la leen fa woowoon waaye ba mu leen di recevoir booba fajar jot na mu indi coowal sandis li ngay dégg ndax dañu faa dem reere wuñu seen kër ba ñu demet gisuñu reer kër Amadou Ba ca la dem jëndi ay sandis këlamti ko ko ndax xiifa leen doon bëgg rey loolee ma nga xewee